salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp nangu yoonu njub yi mu tëral dellu si nanu di leen sant ci seen teewlu ak seeni bataaxal yi biral seen takkute ci déglu émission yoonu njub xarit yi dégg ngeen ñuy wax naan àddina këru naxekaay la muy lu wér ndaxte am na ñu àddina ak li ci biiram tax ñu foog ne bu asamaan si doon wadd sax ñu mën ko aw dañu xamul ne àddina këru naxekaay la moo tax tey ñu bëggoon a gëstu ci moomu mbir ba gis li ci mbind mi wax li kenn ku nekk war a jëkk a jàpp moo di àddina ak li ci biiram dara du fi des ba tax na dara jaru fi ñaaw danu fi romb rekk jëm ca këru dëgg ga kenn ak lenn du fi des asamaan sii ak suuf sii dañuy wéy ay buur ak boroomi maqaama yu woom lee ngi fi woon te lu ñu yóotuwaan jot ko lu ñu daan joxoñ ñu dagg ñenn ci ñoom seytaane jaare ca noot leen àddina jay leen nax leen ba amuñu sax jotu xalaat ci yàlla waaye sax dàkk ci ñàkk jotu xalaat ci yàlla ak coobareem ci sànku ba faaw rekk lay jëme nit loo jënde coobare yàlla nag loola jaru ko ndaxte ci lu wér àddina këru naxakaay rekk la naxkat bu mag bi di seytaane bàyyi fenkat yi moo nekk ci duniyaa bi di ko nëxal ndaxte ni ko mbind mi waxe àddina sépp a ngi tëdd ci loxoy iblis ni mu fene woon aadama ak awa ba bàkkaarloo leen noonu lay def ba tey di fen nit ñi bëgg leen jàppaloo ci li dul wéy dëgg la pexem iblis du lenn lu dul nekk di fen nit ñi ñu bañ a gis ne àddina sii day wéy te dara du fi des mbaa bu ñu ko gisee it ñu lànk bañ ko faale noonu ñu nekk ci li seen bakkan bëgg jàppe àddina ni kër guy wéy abadan moona kàddug yàlla nee na bu leen sopp àddina si ak li ci biiram ku sopp àddina mbëggeelu yàlla nekkul ci moom ndaxte lépp lu nekk ci àddina maanaam bëgg-bëggu yaram xeme mu bët ak rëyug àddina loolu du jóge ci yàlla waaye ci àddina te àddina si day wéy waaye kuy def coobare yàlla dinga sax ba faw ni ngeen ko dégge seytaane naxkat bi soppikuwul te itam ay pexeem soppikuwuñu ndaxte ci ñetti anam yooyu rekk lay fiire ci la fiire woon aadama ak awa ci la fiire woon it yéesu te ba tey ci pexe yooyu lay naxe nit ñi mënagul a gis ne àddina këru naxekaay la kon ñetti pexe pexey seytaane yooyu ñooy bëgg-bëggu yaram réyuk àddina ak xemmemu bët yàlla jógul ci dinu artu ngir ñu bañ a sopp àddina ak li ci biiram ndax nu bañ a may seytaane fu mu noote ci lu jëm ci bëgg-bëggu yaram mooy bépp bëgg-bëgg bu jëm ci yu mel ni ndoxaanul yàqute walla topp bànneexu àddina bu amul kem bu ko defee seytaane dina la ci dimbale lool sax naka ñaareelu xeetu fiir gi seytaane di naxaatee mooy xeme mu bët seytaane dafay xiir nit ki ci muy sàkkoo am lépp lu ay gëtëm ne toq bu yëfu jàmbur itam mu bëgg ko moom te lu mu xas ba teg ci loxoom dafa koy xëllamtoo ak a soxare ñeneen ñi ci lu jëm ci ñetteelu fiir gi nag di réyug àddina dafa nekk mbir moom bare na ñu ci seytaane daaneel li ko waral mooy nit dafa bëgg siiw ak nii laa tollu moo waral yenn saa nit dugganteeg seytaane mu moy ko ndam ak bayre bu ko defee ñi desee xam foog ne yàlla barkeel nit kooku fekk yàlla laalul ca loola dara jinne yi liggéeyandoog seytaane la waaye seytaane moom du maye dara ci nen lu mu la may dina jële ci yow lu ko ëpp fuuf kon moytu war na te gis ne pexe yi seytaane di jëfandikoo yépp ay bëgg-bëgg la leen di def ci xolu nit wante kàddug yàlla nee na bu bëgg-bëgg ëmbee baakaar lay wasin te bu baakaar màggee jur dee kon nanu tey ci bëgg-bëgg yi yeesu xamoon na ne àddina këru naxakaay la gu jarul a jàpp moo tax moom jàppul woon àddina te diglewu ko yow nag boo dëgëree bopp ba jàpp àddina itam bés dina ñëw àddina bàyyi la àddina dafa mel ni ñetti fan la ñaar ña wéy nañu ñetteel baa ngi tollu ci tàkkusaan kon analu ci desati dara mooy li mbind mi wax ne waxtu wu mujj wi jot na moytu leen bu leen kenn nax kon xarit yi li wér mooy yàlla dina àtte àddina si ni mu àtte woon àddina ca jamono yonent yàlla nooyin dëgg la yàlla digga ne dootul tukkal àddina jaare ko cim ndox bi mu naan fii ak suuf di teew ji ak ngóob sedd ak tàngaay nawet ak noor guddi ak bëccëg duñu wéy ba faw dootuma tas mukk bépp mbindeef ak mbënn ndoxum tuufaan dootul faagaagal àddina si waaye loolu terewul ne àtteb àddina moom du jaas li ci kéemaane nag moo di bi safara la ko yàlla di faagaagale loolu la mbind mi wax bi mu naan ndox moo labaloon àddina su jëkk sa raafal ko te kàddu yàlla moo denc asamaan yi fi nekk ak suuf si ngir lakk leen su boobaa asamaan yi dinañu ne rajax toj lu ne ci àddina lakk ba seey te suuf ak li mu ëmb dina ne fànn fa kanam yàlla asamaan yi dinañu lakk ba naaw ni pënd te lu nekk ci àddina dina lakk ba seey nib doom kon ndax loolu dafa wonewul bu leer ne fii dara du fi des ah waaw ana kon lan moo fi jar yenn yi dara jaru ko fi te it mbir mi dafa jampa jamp ba nara bett ñu bari sax màndarga yi yàlla joxe woon ñu ngi ne jonn ci misaal yàlla neewoon na yonent yàlla dañal yow nag dañal nanga denc wax yi ñu nekk kumpa te nga tëj bu baax téere bi ba mujjug jamono bu boobaa ñu bare dinañu ko jàng te xam-xam dina yokk fi nu toll ci àddina si kenn mënula weddi ne loolu yàlla waxoon Daniel amul xam-xam gën naa yokk seet ko ci wàllu technologie ku ko xamul it dégg nga lépp li nit di sos ak amal ci mbirum xarala ak xereñ ci bépp fànn misaal mi ci gën a biir mooy ci wàllu informatique di xam-xam yi ëmb mbirum euh, ordinateur yi léegi daanaka lu nekk lees mën a def ak xeetu machine yooyu naka xeetu machine yu xarala yooyu sax tey jii am na ci yooy tax nañu ba ñu bare ànd ak tiitaanga ba mel ni ñu toog cib nen li ko waral yenn réew yu yor yenn xeetu bomb yu mën a raafal askanu lëmm ci diir bu gàtt te ku nekk xam na ne ni ko yeesu yëgle woon amane ni tey ndaxte ci gox yu bare ci àddina ñu ngiy dégg ay xare ak coowi xare xeet a ngi jóg di dal ci weneen xeet réew a ngi dal ci meneen réew ndax loolu dafa bokkul ci màndarga yi yeesu tegtale mujjug jamono kon loolu deful lu dul dëggal li mbind mi wax ne bési tiis yu tar ñu ngi nuy tëru ci mujjug jamono ndaxte bu boobaa nit ñi dina dinañu fonk xaalis di ñu rëy te yëg seen bopp ñuy xaste tey xëtt ndigali waajur duñu am kóllëre sell mbaa cofeel dañuy jàpp mer ak a sos ñu xër lañuy doon ñu soxor te bañ lu baax ay workat lañuy doon di ñu ëppal te bare tiitar seen bànneex a leen gënal yàlla dañuy mbubboo diine waaye nanguwuñu ko dugal seeni xol mbokki déglukat yi ci lu wér loolu lañuy gis ci jamono ji nu nekk nit ñaa ngi jàppe àddina ak li ci biiram ni lu dul jeex ñu foog ne daal xanaa lépp fii la yem ba tax faalewuñu yàlla ak i waxam seen bopp lañu gën a fonk yàlla lu leen neex def nu leen neex dunde waaye li mbir miy jur mooy bési tiis yu metti yi yàlla nara xëpp ci àddina ak ci kaw képp ku bañ a wëlbatiku ci benn musalkat bi am kepp li gën a doy waar ci jukk bi moo di kàddug yàlla dafa nu ci wonne ñi ëpp ci nit ñi ay boroomi diina lañuy doon waaye seen diine jëruñu leen tus ndax lan ndaxte ci biti la seen diina yem dañu ko mbubboo rekk te ku fequl xam ne lii lépp am na te jege lool sax kon li muy firndeel moo di àddina dootul yàgg moo tax yeesu ne jàngleen misaalu garabu figg ga boo xamee ne ay banqaasam duy nañu ay xobam sëq xam ngeen ne nawet jege na noonu yéen itam bu ngeen gisee loolu lépp xam leen ni njeextel àddina jege na kon xarit yow muy déglu xippil xippi jot na bul bàyyi àddina ak li ci biiram nax la ndaxte bul fàtte ne àddina këru naxekaay la ku ko jàpp it bés dina ñëw moom mu bàyyi la nga detteelu kon yow moom miy jàppe àddina ni kër guy sax te nga ko teela dëddu dëddu ko te walbatiku ci yeesu moom dina la may texe àddina ak laaxira fàttaliku li mbir mi wax ne kuy def coobarek yàlla dinga sax ba faaw dinga ma ne lan moo di def coobareg yàlla coobare yàlla ni ko mbind mi waxe mooy nga mucc am dund gu jeex gi bañ a bokk ci ñi àtteb yàlla nar ne milip ci seen kaw dund jeex gi moom mooy nga xam yàlla xam it yéesu benn musalkat bi mu yónni mu dee ci sa palaas ngir far boru bàkkaaru képp ku ko gëm waaye nag xamal ne fii ci àddina rekk nga mën a ame mucc gi ndaxte mbind mi nee na tey jii la jamono ju jekk ji tey la bésu mucc gi kon boo déggee waareb xabaar bu baax bii bul dëgër bopp fii ci àddina rekk nga mën a gëme borom bi yéesu mi la mën a musal ngir boo deewee tàbbi àjjana tey la du ëllëg du ci sa kawi jëf mbaa ci jëfi keneen ku mu mën a doon ci kaw ngëm ci deretu musalkat bi tuuru ca bant ba rekk la deretu yeesu rekk la mën a ubbil buntu àjjana ndaxte yoonu yàlla wu sel wi dafa ne peyug baakaar moo di dee taqalikoo ak yàlla ba faaw wante yàlla ci yiwam sàkk na pexem musal baakaarkat yi nu doon pexe mi mooy sarax bu mat sëkk bu almasi bi yeesu ni xar ma deewe woon ci palaasu doomu Ibrahima ngir musal ko ci àtteb yàlla noonu la almasi bi yéesu deewe ca bant ba ci sa palaas sunuy baakaar la gàddu ca bant ba ngir yàlla mën nu baal noonu yàlla daan na baakaar te daanul baakaarkat bi te terewul mu dëkk ci njubteem kon fàttalikul ne nit ñax la ak koo mën a doon ak loo mën a am sa ndam a ngi mel ni tóortóor kese te ñax day wow tóortóor di ruus waaye li yàlla wax du dañ mukk noo def mu am ak lu mu yéex yéex ci xalaatu nit waaw te nga jóg ba jóg jotee kon daw ca ba ngay ami tànk ni nga mën a jóge nenn kepp la nga wékk sa yaakaar ci benn musalkat bu wóor bi am kepp almasi bi yeesu fàttalikul na àdduna këru naxekaay la pexam seytaane ak jëmoom mooy nax la ba tàbbal la safara su dul fay mukk bul ko nangu ndaxte jëmu yàlla moo gën ci yow mooy nga nekk ak moom ba faw ca ajana féppul te jël say matukaay nga jëkk a nangu ne yàlla dafa mat te sell ba mënula dëkk ak kenn ku taq bàkkaar nga nangu itam ne bàkkaarkat bu matadi dinga fa kanam yàlla te tële musal sa bopp ndaxte ni ko mbind mi waxe ñépp bàkkaar ba joteetuñu ndamu yàlla noonu nga nangu ne amuloo pexe musal sa bopp te keneen ku mu mën a doon amul pexe ci musal boppam sax waxuma keneen gannaaw loolu nga nangu ne yàlla sàkk na pexe mu nit mën a mucce maanaam deretu yéesu ja tuuru ca bant ba te raxas bàkkaaru képp ku ko gëm noonu soo gëmee ne yéesu deewal na la te muy ngëm gu wér dinga mucc ci mbugalu safara ba faaw rax ci dolli yàlla dina la may kàttanu rëcc ci naxi àddina kon xarit yi fii lanu yem tey ba beneen su ngeen bëggee xóotal seen xamxam ci mbir mucc gi leen yàlla bëgg a may mën ngeen nu bind nu yónnee leen benn téere bu tudd tout ce qu'on dit les prophètes te du ngeen ci fay dara téere bii nu leen bëgg a baaxe ëmb na lu ëpp junniy aaya yu nekk ci mbindi yonent yi boo noppee jàng téere bii di nga mën a xam bu baax li yàlla bëgg ñépp xam ko maanaam ki mu doon ak li mu def ngir nga mën a dëkk ak moom ba faaw kon nag soo bëggee am benn exemplaire ci téere bii di tout ce qu'on dit les prophètes bind nu ci sunu adresse bi di yoonu njub boîte postale 370 saint louis yoonu njub bp 370 saint louis na leen yàlla barkeel te ngeen fàttaliku li mbind mi wax naan àddina si day wéy waaye kuy def coobareg yàlla dinga sax ba faaw